c'est non grand jeexala ko jeexala ko jeexala ko step la step la doon def loolu mais Malick Malick Tapha fowul de fowul foluwul ki mi dajal musuto fo wala man la combat bu métti ngay gis mais est-ce que Tapha psychologiquement la mu bëree woon ak moom jàpp ni daf ko war a duma daal def erreur waaw waaw c'est-à-dire bu nga xam ne mënul mel ni comme bële passé mais Tafa dafa mel ni dafay won Bombardier ni loolu laa bëgg. Hmm. mais su ma doon moom danga may séentoo fitt ma fittal maanaam damay provoqué bombarde bàyyi ko ba mu ko ma jiwaloo ak moom bëre ak moom. Hmm. su ma dee Bombardier damay ñëw jege Tapha Tine parce que Tapha am ay cërëm moo gën a. xañ ko xeex bi xaañ ko xeex bi. ñooxu hmm. ko jéem a xeex ak moom jàppanteeg moom. parce que Bombardier ci combat rapproché am na dooley dóor parce que MMA bi muy def moom moo ko may loolu. naa dëgg. donc tey bu fekkee ni combat rapproché la Bombardier mun na am dara mais bu soree Tapha Tine mën na ko dóor mu wàcc. première face to face xarañ Lo alias neex a faral dimanche ak Boy Niang la dernier samouraay. bu neex combat bu nga lamb moom moo ko soxla lamb moo ko imposé parce que Boy Niang numéro 2 jóge ci ndam kaw Balla Gaye 2. alias Cukkuli Balla Gaye 2 daan ñaari yoon Modou Lo. Modou Lo nekk roi des arènes. kon tey ki nga xam ne mooy mentooru waa Pikine di Eumeu Sène Modou Lo da ko daan ñaari yoon. mu nekk euh, combat bu doy waar li ci laxas yëpp dafa bari mu nekk ñaari mbër yu nga xam ne bu dee doole ëppante wuñu ko bu dee poids ëppante wuñu ko ñoom ñaar ñëpp doole biir lañu yor bu dee wàllu xeex seen xeex dafa dafa bënd Modou Lo buy dugg day xeex buy génn day xeex bu jàppee day xeex te loxoom diis na lool ku weddi laaj ko Eumeu Sène waaye ki nga xam ne moom lay dajeel boxe la njëkk a def balaa muy doon mbër koo koy Boy Niang 2 ba muy doon gone la commencé maîtriser les rudiments de la boxe moo tax bu ñu xeexee xeex bu neex lay doon xeex bu jaar yoon lay doon mais attention c'est un combat dangereux Malick Thiandoum reste reste toujours maître sur son domaine fait partie l'un Malick naka la def ba téye poigne boobu pendant des années Malick Thiandoum est resté toujours un homme constant mais un animateur professionnel. waaw je veux juste euh, li koy waral mooy man je veux rester professionnel toujours loolu mooy sama créneau rester professionnel mais fexe ba. am benn notoriété ci métier bi lan moo la koy may mooy nga impartial booy wax nga wax rek te yàlla tax wax sa aqulaay taala booy wax buy xool ni bu ma waxee lii euh, buur daf may mere non non non da ngay wax dëgg rek parce que dëgg ku dëgg sa jegenaay boo ko déggee di ko nangu donc nekkal ci dëgg nekkal ci professionnalisme le respect de l'éthique et de la déontologie loolu rek moo ñu yóbbu fu ñu nekk mais aussi di gëstu saa su ne parce que métier bi xam-xam bi toujours koy wut. dëgg la bul dem ba toog yaakaar ni yaa xam lépp l' information va le monde va il faut aller avec le monde il faut aller vers la quête du savoir. mais avec humilité. et avec l'humilité de Malick Thiandou man buur ma dépasse. waaw non man sama dépasse. man nag man taalibe bu xeebu la. wala li ngay taalibe Serigne Babacar moo tax. taalibe Serigne Babacar la et puis voilà adduna amul solo ñun ñëpp a yem. pendant que 30 ans de carrière reste toujours stable. xam nga man lan benn star rek mooy borom kun fa yàggul dëgg juddu doo indi tur indi liir bi la ñuy wax boo deewee indi néew bi la ñuy wax doo yóbbaale tur kon nañu rester humble xam ne yàlla rek moo fi ne. démb à travers la TFM nga lancé benn cri de cœur man dama lay déglu tout mooy réew mi nañu dal. moo xam démb li nga wax da ko génne au fond du cœur jagleel ko le pouvoir comme l'opposition ba noppi adressé un message solennel mais un ma de paix ko ci jeunesse. mais réew moo toll foofu parce que tey nous sommes devant l'histoire et nous serons responsables de tout ce qui va arriver maanaam dañoo toll ci ji nga xam ku war a wax waxoo bis bu musiba amee tu seras responsable. kon ñun ñi nga xam ne yàlla daf ñoo dénk fasa mooy ñu wax ñu dégg ñu yor li war nañu mën di wax lu nga xam ne day delloo si xel yi delloo si xol yi moi je dis que les politiciens amuñu droit jël le pays en otage nous sommes 17 millions de sénégalais les politiciens sont une minorité Sénégal benn bopp la kenn waru ko xar kenn mënu ko xar ñaar kon nañu góorgóorlu li fi maam yi bàyyi woon ñu continuer suuxat loolu ñi yor réew bu ñu ko dee réew mu uni la ñi koy wut réew mu dal la ñu war a wute réew mi ba nga xam ne boo ko yoree di ko mën a defar mais réew mu yàqu réew mu jaxasoo xol yu toj loolu bu fekkee ni ku mu ci mënta doon ku ci yor pouvoir doo mën a gouverner kon nañu indi jàmm rek. jërëjëf benn arme rek moom la ñun ñëpp moom la ñu am. Hmm. mooy suñu carte électeur. dëgg la nañu ko gànnaayoo jarul xeer jarul xuloo jarul dara. boo duggee ca mbañ gàcce ga ki doy nga woteel ko bu ñu compter ku gagné jiite réew mi. merci beaucoup le grand. en tout cas